ngi fii tey euh, am fii euh, benn partenaire boo xam ne moom moo ñu accompagner muy ñi ngeen gis nii tey nga xam ne dañu jóge France ñëw jënd seen billet ñëw fii euh, indi li nga xam ne moom la ñu am si moyen demande soutien ak ay partenaires comme ay c 3 ak Caritas pour ñu jàppale ñu ñu ñëw defar li nga xam ne mooy centre bi ndax centre bi ñaari at a nii dafa tëje li si gën a doy mooy man aussi dama feebaroon feebar bu yàgg boo xam ne defatuma woon benn activité donc tey jox nañ ma espoir euh, comme ci convalescence laa ne au moins ñu àndandoo euh, xeex li nga xam ne mooy suñ premier objectif mooy fexe ba centre bi dundaat parce que ñaari at a ngi nii centre bi mi ngi tëjee benn albinos mu ni fi ñëw et li doon premier objectif bi mooy gisoon nañ ne bu yàggul dara benn conseil d'entreprise bu ñu wax CDE ñëwoon nañ fi. Euh, ñu ne ñoom def nañ fi xaalis pour euh, réhabiliter centre bi mais malheureusement euh, li nga xam ne jotoon nañ ko fi def baaxul ndax bi mu tawee lépp dafa yàquwaat donc ñii nga xam ne ñëw nañ fi tey indi seen i moyens yi ñu am nga xam ne dañ ko collecté ci ay bonne volonté ak entreprise yi leen jàppale ñu defar toiture centre bi ba mu rafet defaraat centre bi tabaxaat ko vraiment defar ko ba tey ñu bëgg recevoir li nga xam ne mooy euh, juróom-ñetti fukki xale yoo xam ne dinañ leen jàppale ñu mën a nekk fii mën fi jàng euh, mën fi dëkk di fi lekk di fi naan euh, di fi am formation beneen bi ci des aussi mooy gis nañ ne ñi nga xam ne aussi ay mag lañu te jànguñu ndax Sénégal chaque jour ñu ngi wax éducation inclusive mais tey boo xoolee. éducation inclusive bi dafa beddi ay handicapés yu bari ba ci albinos yi tey suñu suñu xoolee école bi tey boo fa yóbboo albinos du jàng parce que du gis tableau bi li ci gën a metti mooy amul benn accompagnant ndax ki nga xam ne mooy jàngalekat bi kenn tàggatu ko pour mu mën a jàppale ci classe bi ay xale yoo xam ne dañu am handicap surtout albinos et yàlla dogal na nag tey euh, centre bi dina mën a as euh, dina mën a accueillir ñi nga xam ne ñooy albinos yi dalal leen Euh, ñu dëkk fii di fi lekk di fi naan mais aussi euh, am fi jàng et particularité bi mooy tey xam nga albinos bi bu juddoo dafay silmaxa dina am juróom-ñaari weer yoo xam ne du gis léegi bu jógee si juróom-ñaari weer yooyu dañ ko war a jàppale ci li ñuy wax travail d'atelier boo xam ne dafay mën a defar bët yi euh, loolu aussi lañ koy jàppale pendant un an mais aussi jàppale ko ci li nga xam ne mooy ci euh, préscolaire bi ba mu mën a am assise scolaire bu baax maanaam ñu tàggat ko ba tey bu demee ci élémentaire bi dina mën a jàng et li nga xam ne aussi mooy objectif bi mooy euh, chaque année ñu am benn classe élémentaire boo xam ne dina mën a euh, accueillir ay xale ndax gis nañ ne depuis ñu commencé defar centre bi ñi xool ne sous région bi sax ñu ngi ñuy téléphoné di ñu wax ne dañu am ay albinos yu ñu fi bëgg a yónnee ndax centre bi tey booy xool c'est le seul centre d'albinos en Afrique de l'Ouest li nga xam ne aussi mooy suñu gis-gis mooy fexe ba juróom-ñetti fukki xale nekk fi mais aussi juróom-ñetti fukki mag yoo xam ne dinañ leen mën a tàngat ci ci formation euh, li ñuy wax informatique ndax am nañ benn partenaire boo xam ne ñu ngi koy wax Microsoft euh, bëgg nañ ñu jàppale pour que ñi nga xam ne ay albinos lañu mën a am li nga xam moy tagat ci nouvelle technologie de l'information et de la communication surtout eh, informatique bi nga xam tay passeport la ci monde bi incha eh, inshallah dinañ ñu accompagner jox ñu ay machine mais aussi jàppale ci ay tablette yo xam xalé yi vraiment dinañ ci mëna jang parce que xamaki am problème mu gis-gis tey bu amé tablette bo xam da fay am logiciel bu nekk ci bir bu ñuy wax Dolphin dina ko mëna jappalé di yombal gis-gis bi mais di ngandal gis-gis bi aussi ba albinos bi dafay mel ne dafa nekk ci classe normale euh fi mu centre bi paré na gis gis ne léegi nii rek jotaan nañu doowu trois lits boo xam ne Caritas moom moo ko fi indi donc pour l'instant on a une capacité douze lits yoo xam ne dina mën a recevoir ay xale pour ñu mën a tàmbali incha allah.